Ahmadou Sène directeur général adjoint wu Sahel Gaz dans le cadre de la lutte contre le Covid dañu ñëwoon pour maanaam indi suñu euh, ndimbal ci lo pour xeex Covid 19 ndimbal bi booy xool lim bi mi ngi toll ci 5 millions et boo xoolee aussi ci wàllu oxygène am nañ valeur u 1 million 200 yoo xamante ne si jàppale nañ ko hôpitalu Dalal Jàmm dans la lutte contre le Covid. li waral loolu noonu mooy dañu gis ne aujourd'hui l'oxygène médical moom mooy li nga xamante ne si moom mooy li gën a efficace pour lutter contre le Covid et aujourd'hui on a c'est dans ce sens qu'on a décidé de faire un don à l'hôpital Dalal jàmm pour jàppale leen pour mën a xeex lii di mbas mi way way loolu jot nañ ko def ak ay hôpitaux yu bari léegi nag dañ koy continuer continuer dans le sens où dem def ko yeneen hôpital ak yeneen clinique yoo xamante ne si jàppale nañ ko bii nag mooy yoon bi nga xamante ni si fësal nañ ko waaye yeneen yoon yii di ñëw tamit dañuy continuer di ko fësal. dons yi mi ngi nekk ci ay produits API des masques casaques et des produits sanitaires ak ay oxygène des racks un rack c'est un ensemble ensemble de bouteilles la yoo xamante ne si qui fait 360 mètres cubes d'oxygène. waaw day yokk rek li nga xam ne ñoo ko daan def dañuy. jaa jëfal entreprise bi nga xam ne moom moo ñëw tey jii baaxee ñu ndimbal lii mu jëm ci wàllu masque wàllu équipement de protection individuelle jëm également ci wàllu oxygène ku xam Sahel gaz xëy na li nga koy gën a xamee mooy ci wàllu oxygène médical mais ñu ngi def ñoom it lu bëri te également ci secteur yu bëri alors donc ndimbal lii ñu ñu indil tey daf ñuy dimbali pour ñu gën a mën jël en charge maladie parce que ku gis situation bi nu mu demee nii xam na ne question oxygène médical moom ci deuxième vague bi lu ci am solo la daanaka sax garab la fii ci biir hôpital bi daanaka lu mot ñeent fukk ak euh, fanweer ak ñaar mètre cube dinañ ko utiliser par jour am nañu centrale naam dëgg la waaye léeg-léeg maladie ni ñuy soxle oxygène bi mooy dem ba central bi du ko àttan te bu boobaa il faut que am ay bouteilles wala am ay rak loolu tey la ñu société Sahel Gaz bi indil donc da nga ko ci remercier di ko ci jaajëfal di leen wax ne gis nañu seen taxawaay et ñun aussi dinañ ko mettre à la disposition des malades ñu gën a mën a ñoŋal paj daanaka par jour comme ni ma ko waxee ñeent fukk ak fanweer ak ñaar mètre cube la ñuy consommé loolu nag li koy indi mooy léeg-léeg yi dañuy yéex a ñëw te bu ñuy yéex a ñëw dañuy am jafe-jafe ci yi te bu ñu amee jafe-jafe ci yi il faut que ñu defal leen oxygène bi moo tax ñu ngi ñaax population bi di leen wax ne bu amee loo xam ne yëg nañ ko ci seen yaram rek nañu gaaw dem ci structure sanitaire yi balaa muy euh, trop tard parce que bu boobaa seen poumon yi buñ ko gënee attaqué noyyi bi day am jafe-jafe tu boobaa il faut oxygène bi li ñu fi gis li liñ ci liñ liñ fi gis donc mooy que ni hôpital Dalal Jàmm daanaka li muy utiliser ci oxygène médical bëri na lool parce que booy xool lu mot euh, euh, cinquante personnes ñu ngi toujours sous masque à haute concentration daanaka dix personnes ñu ngi toujours réanimation donc booy boo koy xayma daal euh, ñeenti téeméer ak fanweer ak ñaar mètre cube encore une fois moom la ñuy utiliser par jour. waaw xam nga affaire vaccination <laughs> Sénégal moom yàgg nañ ko yàgg nañ ko coow xam nga ñu ngi doon coow Sinopharm fu mu toll nii ñëpp a ngi daw di uti Sinopharm mais ñuy wax ni rek ni euh, mbirum vaccin tamit. coow li Sénégal jaru ko motu ko parce que kenn du indi ay vaccin pour lor sa sa sa askan te tey jii nii su ñu buggee mucc ci mbas mi ñun ñëpp dañoo war a vacciné wu ñun ñëpp lii ñuy laam-laamee ndax baax naam baaxul may firndeel ni fii boroom kàngam ci wàllu Sénégal ak ci wàllu àdduna bi yëpp biral nañ ne que AstraZeneca bi lu baax la ñu ngi ko fii ñàkk ay nit ñu ngi jóg di doxi seen soxla donc euh, loolu leeral la rek bu ñu buggee nag mucc ci mbas mi ñun ñëpp dañu daw dem ñàkku ji bu ko defee ku nekk ci ñun protéger sa bopp mais mën a protéger également ñi nga nekkal noonu la ñu mën a def pour que rompre chaîne de transmission bi mbas mi génn fi ñu ñëpp ñu dellu nekk ci suñu jàmm dellu dox ci suñuy soxla. Aujourd'hui, au nom du président directeur général, on a voulu faire un don à l'hôpital Dalal jàmm aujourd'hui qui est le plus grand centre de traitement épidémiologique du Sénégal. C'est dans ce cadre de la lutte contre le Covid et que nous savons aussi que l'oxygène est le nerf de la guerre, de la lutte contre le Covid. C'est dans ce cas et que nous sommes une entreprise sénégalaise à 100% et nous avons décidé de faire ce don à l'hôpital pour pouvoir les accompagner dans la lutte contre le Covid. et je pense que ce don est composé de matériel médical ainsi que des produits sanitaires, ainsi que des racks d'oxygène aujourd'hui qui ne sont pas ici, mais qui sont déjà installés aux centrales de l'hôpital pour permettre par exemple aujourd'hui aux malades de pouvoir vraiment... Aujourd'hui, les, les médecins ont jugé que l'oxygène médical aujourd'hui est le premier remède contre euh, la maladie. Et en ce moment-là, on a décidé, on a pensé nécessaire, nous, les accompagner l'hôpital Dalal Jamm surtout on les a accompagnés durant toute la période de Covid où par exemple c'était des moments difficiles mais qu'on a su tenir et on accompagné aussi les cliniques et les hôpitaux je pense que c'était ça le montant dégagé du don est à hauteur de 5 millions plus des RAC qui sont à hauteur de 1 million 200 je pense. C'était, c'est, le montant. Au total, ça vous fera un montant de 6 millions 200. Oui, exactement. Nous comptons, en fait, on a eu à faire beaucoup de gestes dans le passé, mais ça n'a jamais été médiatisé. Et pour cette fois-ci, on a choisi de le médiatiser juste par, euh, pour répondre, par exemple, à une demande qui est préoccupante, de faire savoir que le travail que nous faisons en bas aujourd'hui, que les gens sachent que nous sommes euh, là pour accompagner ainsi que les hôpitaux et les cliniques et dans le domaine médical.